rapport ak président de la république rapport détaillé bu mu sàkku si ministère yi nga xam ne ñoo laale si wàllu mbënd gi yow da nga jàpp ne dafa nargué les sénégalais nga teg ko fan. mais dafa yem ñoom président de am am na huit ans dix ans la war na am jàll diggante bi gëstu na fi gestion maire Ndakaaru ba jàpp Khalifa Sall bu defoon yitteem ni mu defee yitte gestion maire Ndakaaru bu ko defoon yitte plan bi kon jàpp naa ne nga ni fekk na mu xam lan moo xew. donc danga nga jàpp ne dafa war a activer li nga xam ne mooy IGE xam nga yooyu ay sotti lëndëm nit ñi la mhm. dama la wax ne ginnaaw moom am na IGE mhm. Cour des comptes mi ndax plan bi dox na wala doxut kon bu toogee ba léegi mu naan nañ nañ ko jox ay ay ay renseignement loolu loolu c'est c'est yàpp nit ñi la parce que moom lu mu bëgg xam dara mën na ci xam dara ba mu bëggee xam dara ci alalu Karim Wade kër yi la dundal régler problème am ba mu bëggee xam ci ah, yorinu maire Ndakaaru Cour des comptes la fa yebal kii pardon IGE la fa yebal lu tax loolu mënu ko kon encore une fois pour man jàpp naa yooyu ay ay ay ay la ndëm nit ñi la te jàpp naa loolu du ay teggin am réew kenn du ko kenn du ko kenn du leen foyee noonu. est-ce bokk ci observateurs ne 750 milliards de francs CFA wala 760 milliards moom leen def graduellement ci wàllum inondation bi xaalis bu xaalis boobu ko. non non affaire ban ma ci wax dara pour le moment moom nee nañ ko defal rapport wax ko lan moo xew li ma jàmm mooy xaar rapport bi mais pour le moment mënu ma ne 667 yi def nañ ko ci mënu ma ne defuñu ci. munu ma ne dañ koo détourné munu ma ne du ko duñ ko détourné li ma jàpp daal mooy naa moom nee na ne li ma xam mooy plan bi ci boppam moom la ko taxoon a jóg plan bi amu ko mooy plan bi c'est un échec loolu moom ku mënees na ci duut baaraam parce que bi mu tam bi mu tawaatee rek la lu gën a bon la doon am moo am. nee na kii di euh, soxna si kii di président de la république Marième fay Sall mu dem dans la banlieue euh, foofu lee si Pikine ñu gis euh, événement yu si xew ñu gis ne sax le ministre de l' ancien ministre d' état Habib si moom dafa jàpp ne est ce que Marième Faye Sall nekkul candidat bu APR en 2024 non xam <laughs> nga yéen waa maanaam moo dàq tooñ ci àdduna maanaam tooñ lay dundee maanaam moom. le fait que Marième Faye Sall dem nekkul loolu. non non maa ngi ñëw amit moom tooñ dong la ko yàlla mën loo moom loolu moom moo ko dàq ci àdduna euh, pour man euh, damay jàpp ne damay def yëpp journaliste ci mbir moom. mooy euh, je vais parler du train qui n'arrive pas parce que man jàpp naa ne yow man ñun ñëpp am nañ droit dem seeti ñi nekk ci mbas mi comme ni ko Marième defee ki def li mu war ki ki bàyyi li mu waroon def mooy président Macky Sall. am réew mënoo ko yor nit ñi di ndox sotti ko seen kër ba mënatuñ fa dëkk ay bakkan rot nga benn nga jël roppalaan dem tukki loolu du teggin fu mu ko fekkoon fu ne daa war na bàyyi la mu def dis mhm. kon wërta génn ci réew mi jamono joo xam ne ay doomi Sénégal ay compatriotam ñu ngi ci biir jafe-jafe ba ay bakkan rot ci ñaar ba mu desee ba léegi génn pare seeti nit ñi ba xam ne ñuy dundee dama jàpp ne fekkee da ngaa yorum réew saw askan seen bët xonq buñ gëstoo dañ la war a gis. Mm-hmm. kon ki def lu mu war a def mooy président Macky Sall mi demut ci askan wi xool nu ñuy dundee mbas mbal mi. kon keneen ko dem pour man loolu duma ma ci du ma ci duma ci insister Macky Sall moo def moo amul yërmande ci askan wi. bo Walf Quotidien yaa ngi wax ne kii di président Macky Sall Sénégalais yi dañ ko war a porter plainte. waaw sur quelle base lañ ko war a porter plainte. xam nga dañ ne non assistance à un peuple en danger c' est un crime mois de mai mois d' avril président Macky Sall xamoon na ne ren nawet bi dina teel. ndox mi dina bari te dina yàgg benn su fekk réew boo xam ne nag bu layee sax mu inondé ñu wax la xibaar bu toll noonu daa waroon a jëli matukaayam bu jëloon matukaay yi mu waroon a jël kon nit ñi ndox mi du leen fekk seen kër kon ña juróom-ñaari bakkan yi ci faatu duñ ci faatu kon alal ji ci yàqu du ci yàqu kon encore une fois ginnaaw moom bañ ko waxee ne ko musiba ngi ñëw sa kër.

mooy xoddeekuwul bi bi mu daal bi ñu la daan lëkkale maanaam na waroon a waajale nawet bi ba bu mba bu ndox mi bare itam du indi du indi musiba wala boog dina wàññi ko trop defu ko bi mbir mi amee ba noppi na mu waroon taxawee mooy dem xooli leen nu ñuy dundee pour la première fois dans l'histoire du la République lu musiba mu toll nii am ci réew mi demoo ci askan wi nga xam ne loolu loolu la dal loolu c'est un crime c'est inacceptable c'est de la haute ku ko def ku ne war nga sama réew te ku war warum réew réew ma da war topp ndem da la président République beneen fait aussi euh, seetlu nañ ko ci inondation bi par rapport ak euh, les politiciens mun nañ ko waxee noonu ñi nga xam ne ñu ngi activé activé wu dans la politique gis neen euh, pig yi am seen diggante Ousmane Sonko Thierno Bocoum bu agir Bougane Gueye Dany par rapport ak politisation inondation bi ban lecture nga def si par rapport ak romandat yi am seen diggante au moment où la population fu mu toll nii mu ngi soxla leneen. waaw jooju nga wax mu am jamono ji ay doomu Sénégal ay junni nit di seen seen seen kër yëpp ndox nangu ko mhm. lu mu tudd ci juróom-ñaari famille seen nit faatu mhm. jàpp naa ne ku nekk ci réew mi un ngay def politique mhm. wala ngay kilifa diine war ngaa tal lu dut di werante werante wu amul njëriñ kon encore une fois jàpp naa ne jafe-jafe bi Sénégal yi dund classe politique am war a taxawee mooy yërëm ko bu dee opposition ñu ñaawlu ni nga xam ne noonu la ko président la doxale bu dee ñi yor ci nguur gi nag ñu wuti saafara waaye jàpp naa ne ay xuloo politique moom wax dëgg yàlla nag situation Sénégal bi weesu na foofu mhm. après statut nga wax ji après statut euh, chef de l'opposition on parle maintenant de gouvernement élargie boo xam ne socialistes yi euh, dañ ciy nekk libéraux yi pour yow lan moo wundu boobule gouvernement nga xam ne kii di président Macky Sall ñu ngi euh, romandaat ne mu ko fas yéene teg. xam nga xam nga man euh, yow yéen yow loolu loolu laa parce que seen saal bi toog naa fi sa studio bi bi ab diil la lim ci yii la. lu mos a Idriss Seck mu nekk chef de l'opposition. ah bon oui. pour yow euh, chef de l'opposition bi da nga koo defar nii rek. pour bi daf koo def pour pour pour pour peinturer ko li mu bëgg. mooy defar ja bu dialogue bi bu jàllee mu ne ah dialogue bi moo ne. nañ wut chef de l'opposition ok benn am na ñu ñu bëgg a jóge ñu war a jëlee PDS dugal leen ci gouvernement mu jëlee leen dugal leen ci ñu tudd ñu boole ko ci dialogue bi bi bi ci des mooy am na ñoo xam ne sax dañu ànd ak Idrissa Seck ci coalition bi mu jël leen dugal leen ci gouvernement bi en somme dialogue bi du du du du du dialogue politique njuuj njaaj politique la. donc président Macky Sall moom ba tey euh, mu si mën a. waxoon na ne waxoon na ne bàyyi nañ njuuj njaaj waaye tey la ko dàq dialogue bi. du jural Sénégal lu am njëriñ d'ailleurs moom rapport bi ñu génne rek li ñu ngi tekki li ñu ci gis mooy c'est très petit par rapport boo xool euh, rapport bi Amadou Mata kii. Mm. président Kéba Mbaye génne woon en 91 ba mu jur euh, kii le code consensuel xam nga ne boobu liggéey boobu bokkut ak bii liggéeyu Amadou Mahtar boobu la CNRI. E mm. kii la charte de la bonne gouvernance bu bu bu Assises nationales bokkut rapportu CNRI e bi bokkut bi bii bii moom dama ne Macky ay njuuj njaaj politique la. loo xam ne am na lu mu bëgg mu wut ko peinture peinture dialogue politique mais en réalité loolu mu ngi ci suñ kanam rawuti bët parce que en réalité su fekkonte ne yabuñu Sénégalais duñ fi tut ay affaire chef d'opposition chef d'opposition xam nga lan moo koy jur statut de l'opposition loolu la constitution bi wax constitution bi dañu statut de l'opposition daa war a am statut de l'opposition ab loi moo koy defar loi loi boobu nag bu ñëwee mooy indi kan moo war a nekk chef de l'opposition waaye yow réglé woo statut mais bien sûr dama ne sax wala un bœuf sans charrue mooy li ma wax ci affaire njuuj njaaj la loolu nag li muy tekki mooy sari ba léegi rek ñun waa Sénégal dañ ñuy caaxaan mais nag gis nga son soxna Ndiaye waa Sénégal ñooy bëgg ku leen di caaxaane waa Sénégal ñoo bëgg ku leen di foyee waa Sénégal ñoo bëgg politicien bu leen di fenn waa Sénégal ñoo bëgg politicien bu leen di nax moo tax ku leen yor ku ne loola neex def. élargie bi ñi ngi wax nga xam ne euh, famille bi bi dafay retrouver ak socialiste yi daa am ñu nga ni euh, dañ ko def ngir euh, njëriñu askan bi ngir jéem a essayer mais lam ci jublu moom mooy tamit affaiblir PDS mhm. gën a ko naka maanaam la vengeance bi mu nekkee léegi mu mu wéy ci mhm. ci jublu maanaam nag xëy na bu koy def pour bëgg waa APR du ñu mel waa benn du mel mu mu ko ci dialogue politique bi parce que xëy na bu ñu toogoon parce que ñi muy ñi ñi nar ko fi jógee PDS bokk ci gouvernement bi mais mooy ñu doon xeex Macky Sall bi nekk ci ak Abdoulaye Wade ba jëlee ci moom poste numéro 2 PDS. jëlee ci moom euh, as assemblée nationale fexe ba ba ba ba mu bay ñu ba ba naroon ko sax tëj naan dafa indi conteneur xaalis ci réew ñooñu nag pour mu indi leen ci nguur gi du yomb. il faut mu wutal ko lay jaar na jël politique mais encore une fois moi je lance un appel solennel aux militants de l'APR buñ nangu Macky Sall fay leen bañ ko ña ko bëggoon a sànq démb ñun ñu taxaw ci wetam ba mujj ci waruñoo nangu mu dunu fayee fayee nag mooy jël ay xuusement ñàpp yoo xam ne dana génne ci PDS pour di leen dugal ci gouvernement bi loolu du njariñu Sénégal du njariñu alliance pour la République du njëriñu benn bokk dañ ko war a laal. Mhm. sànq brossé nga li nga xam ne mooy euh, statut euh, de chef de l'opposition nga jàpp ne président Macky Sall da ko xàll rek ngir euh, tegal tànk kii nga xam ne mooy sa Seck

Sonko calendrier bi ci boppam parce que dina am nañu jël dugal ci gouvernement mm-hmm. quand PDS dina ko dina ko wàññi parce que am nañu koy jóge dugg ci gouvernement bi mm-hmm. moom Benno Bokk Yaakaar mu soppar ñu xar kanam bi mm-hmm. ba na ñu jàppale ko ci troisième ci dugg ñu gis ne troisième mandat amaan na beneen troisième victime euh, fan yi ñu weesi mu nekk le directeur de Dakar Dem Dikk maître Moussa Diop Euh, ba lecture nga def sur événement yooyu bett na la wala. non bett moo xam nga euh, bi bi mu waxee wax dama woo say con confrère wala conseil yi nekk ci femme bu ko doon doomu jàmbur bi en réalité boobu pour man président la sañ naa dàq directeur sañ naa dàq ministre chef de cabinet conseil sañ na ko dàq parce que loolu constitution moo ko may mais li nga xam ne moo moo ci mooy mooy ñuul ci. Euh, soow mi soow mi. Mm-hmm. mooy ni mu koy defee dafa yiwadi. Mm-hmm. dafa yiwadi maanaam koo xam ne. bu nit ne troisième mandat rek mel daf laa rey acceptable mais li ci gën a garaaw loolu ci affaire musaa Diop ki mu remplacé musaa Diop deux après 2012 la door a ñëw fekk si Macky Sall te Moussa Diop moom lu mu dee dee bi Macky Sall di wut nguur gi ànd naa ak moom ma jàpp ne Macky Sall war naa mën a xëy na mën naa bëgg ay yaatal yaatal yi mbiram waaye warul jël nitu démbam di ko suule nitu tayam te loolu la def ci Moussa Diop te loolu yàpp naa lu ñu. ñoom ñu ngi soulever aussi euh, problème de gestion. bu ah. amoon euh, au niveau de Dakar Dem Dikk ah, aussi. li ñuy wax coow bari dëgg réer loolu leen intéressé Moussa Diop ba mu naan nañ dee jitu ilaa Touba moo gën a garaaw fop def ko ilaa Podor loolaa gën a garaaw fop te dax ko ba mu jëlee couleur <coughs> Dakar dem dikk peinture ko marron beige looloo gën a garaaw fop te ba mu ko defee dax ko ba mu jëlee terrain Dakar dem dikk jaay ko après ñu def ko sees looloo gën a garaaw fop te boobu dax ko kon bu ko dàqee troisième mandat bay tax mais du mauvaise gestion pour mauvaise gestion intéressé wul Macky Sall yaa ngi koy tant yaa nga événement yi nga xam ne xew na foofu le au niveau du Mali président de la République euh, Macky Sall ak M23 yi nga xam ne bokk na si euh, membre clé pour ne pas dire euh, acteur clé yi si si yooyu les événement yaakaar nga ni kii di président Macky Sall dina jéem a teg li nga xam ne mooy troisième mandat di jéem moom tàmbali na ko ba noppi xanaa kay ndax nag na dana sotti pour mu ñàkk sotti nag moom mi ngi ci loxoy yi la nekk bu bu ko Sénégalais jaay seen bakkan jàpp naa ne su boobaa li mu bëgg dina échoué ci biir lool nag maa ngi insisté baat di ko xat kilifa yi diine yi suñu nee patt ngir teraanga yu Macky Sall dox seen digg doxale seen diggante ñoom ba ba Sénégalais yu bari faatu fi ngir troisième mandat su boobaa daañu am responsabilité bu rëy rëy rëy. troisième mandat kii nga xam ne mooy grand serigne de Dakar Abdoulaye Makhtar Gueye moom ngi wax Diop moom ngi wax pour ñu dem vers un référendum.